ci am ci expérience waa coow li nag buñ ko waxee paasewul di Diop waali Seck doonte xam naa peut-être doo ci bëgg xuus <laughs> mais boo amoon conseil booy joxe ndax damay wax ne rek euh, ñi ci jiitu ku mel ni Pape mhm. ak ñi leen jiitu Youssou ci Thione Seck yàgg nañ fi ku nekk di jouer mhm. te lépp di rafet ba tey mhm. boo amoon conseil boo ci booy joxe waa mais euh, je pense que ne question bi sax tontu nga ko na rafet conseil bi may joxe mooy na rafet gis nga aar bi kenn moomu c'est pour tout le monde ku ci ku ci tënk ku ci tënk sa bopp liggéey rek di nga am résultat. affaire bi nag du coow de. gis nga aar bi carrière la gis nga carrière dafa am solo ci artiste. te carrière boo ko bëggee def. Hmm. il faut nga tënk sa bopp bàyyi buzz bi te dem liggéeyi aar hmm. bi buzz yoru ko buzz dafa am fu muy yem. Ah. mais am na foo xamante ni carrière moo la fay eggale. foog nga liggéey foog nga xam li ngay def foog nga xam fi ngay teg sa tànk foog nga maîtriser sa bopp foog nga tënk sa bopp foog nga respecté ñi ngay àndal respecté sénégalais yi mm-hmm. boo ko defee fi nga foo bëgg àgg da nga fa àgg te ñoom ñëpp ay ay ay jeune talent loo xamante ni kenn ku ci nekk am nga lu la yàlla may quoi qu'on dise ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am la yàlla may bu amoon la yàlla may mbooloo du topp sa ginnaaw te ñoom ñëpp mbooloo wa topp seen ginnaaw mm-hmm. kon bu rafetee rek ñu tënk seen bopp te liggéey te rafetal ko rek mm-hmm. après li ay détails la fu ñu bëgg àgg dinañ fa àgg. su ma la déggee même bu dul ñoom kon xale yu bari niñ ciy duggee ci aar bi buzz lañ ciy duggee mais pas liggéey. xam nga xam nga ñu yoroon aar bi. ñu lim nga ko ñoom Youssou. ñoom Papa Thion. Mhm. ñoom Pen. Mhm. ñoom ñëpp mais ñaata artistes fi nekkoon. bari na mais xam nga léegi li gën a garaaw laa lay wax. Mhm. ñoom bi ñu fi nekkee da nga daan déggandoo ñoom ñëpp. waaw waaw surtout da nga daan déggandoo ñoom ñëpp. bu weekend jotee ñoom ñëpp ay joué. mais léegi ñaari nit rek ngay dégg Waly mm-hmm. Pape Diouf bu amee ko ciy topp ñoom di lay doon. lu waral mais parce que léegi ni ñu doxalee aar bi baaxul aar bi léegi bës lañ ko jëlee. Mm-hmm. bës lañ ko jëlee. waaw nga léegi lan moo tax ma wax la léegi lu garaaw. Mm-hmm. bu njëkk ba da nga daan artiste ne tëll. <coughs> fan bi gis ko rek xëm. la. artiste ne tëll fans bi gis ko di jooy ba kenn mënu ko téye artiste bi wax ak fansam téléphone rek ñaata ngeen dégg ne Alioune Mbaye de wax naa nit téléphone ñu nangu téléphone bi ne xam na ñaata nit al ñaata nit a gis Youssou nduur xam keneen keneen noonu mm-hmm. Pape noonu keneen noonu mm-hmm. xam nga tax euh, kii boobu amatul léegi attirant boobu amatul léegi mm-hmm. ni xale yi defee showbiz léegi dañoo jël bës bi jiital ko à chaque fois ñu ngi ci internet bi. Mhm. ñu ngi ci statut yi. Mhm. ñu ngi ci tiktok yi. ñu ngi ci mbedd yi ñu ngi ci cest diir dire da ngay dem ba benn benn moment flair bi fans bi am ci yow. Mhm. mënatu ko am ci yow. mit bi amoon ci diggante artiste bi ak fans bi nga xam ne dina raar ba bu ko gisee am lu ko toog léegi artiste bi ba la léegi eh diwa ngi nii yow ça ça te fait rien du tout parce que léegi li ñu jiital baaxul bu ñu tënkee suñu bopp artiste day tënk boppam tëju liggéey léegi moment bi ñu war a liggéey ci la ñu nekkee ci mbedd mi. dëgg la boo xëyee artiste bi amul jot bu xëyee day nelaw ba 17h 18 xam nañu loolu. guddi gi nga am. Mm-hmm. boo yeewoo 18 yaa ngi daw doxi see quelque wala nga dem studio guddi gi nga am pour tëju wut tuuti xam-xam. guddi googu boo ko taalee oto nekk ko ci mbedd mi dem ci ànd ak xale yi ñu ngi TikTok fii yéen a ngi fii mais kañ ngay xalaat loo kañ ngay xalaat loo way lu baax. xam nga am na lu ciy def mm-hmm. waaw di way marché jàmbur yi waagaan li mu wax nii dafa dafa garaaw de sa parce que dañuy gis benn booy day génn am buzz mais depuis quelque temps kenn dootu ko dégg. kenn dootu ko dégg te bu njëkk ba xoolal bu njëkk ba. waaw yaa ngi dégg Youssou ñaan ñaata at de carrière. waaw ñaata at de carrière. waaw Baaba Maal ñaata at de te ba léegi. bu ñu génnee ñoo mën xale bu ñu génnee def xam lu leen ko may. dafa am benn denc bu ñu dencoon seen bopp liggéey. sa waay hmm. ku liggéey fayeeku waagaan ku liggéey fayee ko ah buur géwél waxtaan yi noonu lay mën a mel c'est parce que li muy wax nag daf koo xam ndax dund na ko nekk ci ñu gis bërki démb euh, Wally Seck